la 14 la 14 buy ñëw na jàpp ne fekk fii bu ko neexee nañu rey bu ko neexee nañu suul mais bu bu mu jàpp ne ñu doon saafara ñoo ko def de ñi mu fa fekkoon rey leen ñooñu lay suul man loolu gëm. bu mu baax bu mu baax dañu ko def fekkee ni nag la mu waxoon ñam ko santoon defuñu ko bu ñëwee dinañu fekk ta marché bi daañu xonqal cur fii ginnaaw raay. pap pap googu loolu bàyyi nañu fii ñuy dund lii ñu bind ko wax wax mu dem ba Casamance ca marché bu fay la keroog mu dee dañ ko faa génnee keroog nag ñun ko gisee bi ñu ko gisee ñu tax ñu dañ ko jéppi faale wuñu amuñu solo ñu ne fam ñu teg lañ fam ñu teg lañ ko parce que ku la gisul fenn xooloo ko fenn. ndax ginnaaw raay moom banlieue li ko yàq mooy ku woom le beru boo yoru dara fi ngay entraîné doo yore daw nga moo fi mas a ne te xam nañ ko te ñi ngi dem ak ñoom amuñu maire digeem ba ñu digoon kese lañ koy fàttali dem ñu digoon nit ñi dinañu wutal fu mu ñu recasé donc la xaar na xam ni nag carrément ginnaaw raay ginnaaw raay moom suul na leen te deewuñu président ñu APIX respecté ses engagement parce que APIX dafa jële fii nit ñi jafe-jafe yi bëri na amuñu yoon bu ñu jàng secteur bu ñu génnee agression yi ñu ngi taxaw barki demoo Njaay ñaari femme lañu ñu agressé nangu seen tam ñun dañu ragal fii ci fii ci kaw raay bi mais nan ngay de fo passerelle terre xalaatoo nit ñi fu ñu jaar wala ñun nit ñi ñun moom léegi dañuy naaw mais mënuñu naaw di génn dëkk parce que ginnaaw amul école amul lycée amul dara. nit boo ko fekkee mu liggéey fenn 30 ans di ci dund di ci dund njabootam nga xëy benn bis na ko lemal foo xam jëma loolu lu ko gën jaaykat yi nekk marché Maam Jaara bu Pikine Ouest ñoom amee ñaqare te am tiitaange ñoom de ñu ngi am yaakaar ne njiitu réew bi dina leen may nopp gala ñuy lancé train express régional si altine bii